mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat baax fi ñu leen daan nuyoo ñu ngi fii ci stade Caroline fay bu Mbour comme la ñu ko waxee deuxième journée bi lay doon mooy drapeau chef de l'État tey nag di sélection individuelle lay doon kenn ku ne ci sa poids ku ci man ak kan moo koy jël ndax final yi suba la war a doon ndax demb ba ñu bëree diggante Dakar la war a doon ak Thiès muy final ba par équipe waaye sans pour autant tarder yàgg maar ñu ngi nuyu mbokk internet yëpp de nuyu ñu ñuy suivre waa Mbour ñu ngi leen di nuyu Amadou Diop ñu ngi nuyu ñëpp professeur El Serigne Fall am na solo ba ci kanam tuuti lépp lu fi ruusee li ñu ko wax rek noonu lañ koy jëlee mbayang lum ne ci woy yi moomoo ngom baabu ngom la ca tëgg la nga xam ne yàgg tey boo seetloo démb euh, vraiment Thiaka fay diggam ak ki nga xam ne moom mooy Boy fay gis ngeen nu mu demee Boy fay jël bu mu ko daan waaye ñoom ils sont toujours restés fair play parce que xamante nañ seen biir dañuy bëre lu dul lii dañuy bëre fu dul fii ci noonee la ñu Boy fay di rombe nga xam ne boo xoolee xale bi yàgg maar na muy doxee na muy doxalee mbiram. serein di dox amul benn pression moom Boy fay nga xam ne ordinateur bëri na fi dem salembele ñu ngi fi ñoom Libidor waaye nag gis nañ fi assurance bu mbuur ñëw na addu si waaye tam champion yëpp ñu ngi fi dégg nañ lu bëri ñoom Bombardier ñëpp ñu ngi leen di xaar fii ci stade Caroline fay bu mbuur waaye nag mbokk yi Leewtoo ak loo mënti demee ñu ngi nuyu équipe Leewtoo bi yëpp leen jaajëfal bu baax yàgg maar ñu toppante ba ci kanam waa mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax ñu ngi tey ci vingtième édition drapeau chef de l'État toog ak le roi des arènes Yacine Ndiaye Manga 2 ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di fay tey euh, bésu bànneex la bésu feetu sport la vingtième édition du drapeau du chef de l'État ñu defee ko dans le département de Mbour dans la région de Thiès. yaakaar naa ne loolu c'est une fierté pour ñun parce que ñun ñu ngi ci dëkk ci région de Thiès kon tey premier journée bi stade bi yëpp fees deuxième journée bi stade bi fees troisième journée kenn di ko waxati kon loolu ndam la et je pense que Mbour les grands champions sont là xam ngeen ba Mor Dieng moom ci boppam muy préparé di def surprise ni yi donc ñu ñëpp teew ñu dem teew tey tewaat ñaan yàlla teewaat suba. Ouais. Et le plaisir que j'ai, c'est d'assister comme par exemple dakaar ñëw fii malgré équipe mu dem finale contre Thiès Thiès moo organisé donc Dakar dem ak moom finale donc affiche boobu rek dafa nekk affiche bu rëy. Tor doon yàgg maar kay may ma damay fartu xam nga je de Thiès. Sele nuyu nañ waaw maa ngi lay. incha allah rabbi waaw loolu laa bëgg de. attention. waay waay. xamante ne. yàgg na xamante nañ bu baax. Uh-huh. waaw waaw. ana waa Ngeexu. waaw ñu ngi ñoom ñëpp a ngi fii di seetaan. ñëpp ñëw nañ fecc bi ñëwagul de. yëngal yi. xanaa neew fi woon démb may instant dama dama jëlagum vision quoi di xool ak ay si kanam nii tuuti wala ràcce bi wala. Sele Ngok. waay laay la yàgg maar. diggante Cheikh Tidiane ñëw. Fatick Ibrahima Sène Matam Matam ak Fatick ndeysaan attention Cheikh Tidiane la muy def nii Cheikh Tidiane ñaa Ibrahima Birane Sène Matam Cheikh Tidiane ñaa Fatick catégorie poids 100 kilos. attention Sélé ak ki nga xam ne moom mooy ah arbitre woon na leen ah. Ah, ah ah kon dafa mel ni sele daan na ko Modou Moustapha Sall Tambacounda moo jàkkaarloog ñun càkkaanu woon ginnaaw ñu ngi woto eh attention jege ñu jege nañu limite bi Caaka Faye Maodo Moustapha Sall Caaka Faye Maodo Moustapha Sall attention Caaka ni nga jege ligne bi mbaa wóor na am na looy déplacé woo boo ko jegee ñu avertir la ñu ngi lay baa ngi wax ak ñoom Caaka nu woon ginnaaw Maodo Moustapha Sall mu jàkkaarloog noonu ñamante nañ ci kaw attention Mamadou dem na song caaka caaka kor na jàpp na bopp ba bopp ba tee na bopp ba jàppante nañ ci kaw jàppante nañu caaka fay Mamadou Moustapha jàppante loxo yi waay hey jàppante loxo attention ah Mamadou jël na tànk Caaka Caaka bañ na Caaka fay Mamadou Moustapha Sall Mamadou Moustapha Sall moo ñu won ginnaaw léegi attention ñaari xale yi Caaka ngay bëre ak tànk ba ay eh waay Caaka fay waay attention dem na jël ko mu bañ la ilaha illallah Caaka fay Mamadou Moustapha Sall Ibra Sarr fogole lago lago yal pangol Caaka Fay moon won ginnaaw ndeysaan Seetu Salmon Fay la waaye Mouhamadou attention Caaka jël na ko jël na ko daan na ko Caaka Fay daan na ko yàgg maar yaa ci gis day ñëw yéeg tey waxtaan ak amateur yi waa mais grand waa grand noo man Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye. waaw waaw ñëw seet. campement nga wax. campement nga wax. ah moom bu mayee affaire boobu rek waaw maa maa taxaw ci ko de ko rek. Mhm. supporter di ñaanal euh, équipe kees bi. suñu borom may leen jël final bi. ndax soxla nañ ko lool vraiment. di wax ne organisation bi jaar na yoon public bi wusi nañu supporters yi wusi nañu mais ko kees gël daal kees daal lañuy ñaanal mu jël lépp waaw incha allah waaw merci attention Abdoulaye Sall Mamadou Sarr Kédougou moo ñu war ginnaaw Abdoulaye Sall Tambacounda ay mbayang lum la muy waxati nii arbitre laaj na ndax pare nañu Louga Kolda sifflé na attention Kolda moo ñu wan ginnaaw moo attention da koy génne da koy génne ci biir Bernard Sangor moo wan ginnaaw mu ngi koy mu ngi moom Ousmane Mangane lu muy def nii Ousmane war na ko ndomba Ousmane ko eh Ousmane Ousmane Mangane bu Louga daan Jean Bernard Senghor ndeysaan ndeysaan mbokki Leewtoo déggal mbayang doole njom ne doole xoytaaye <laughs> Mamadou Thiam Dakar Famara Sarr Tambacounda catégorie 100 kilos quart de finale compétition individuelle Famara Sarr Tambacounda Bébé Diène Dakar quart de finale attention la ilaha illallah Famara Sarr moo jàkkaarloog ñun Bébé Diène nañu war ginnaaw ñu ngi leewtoo ñu ngi leewtoo Bébé naan booy doxee ci kaw ligne bi danaa avertir sukk na omb moom Famara Bébé Diène Famara Sarr ñu ngi lewtoo songo nañu songo nañu attention attention ligne ba arbitre sifflé na Famara Famara Sarr Tambacounda nañu Bébé moo xaw a xees wala moo mbar mu xees na plaqué nañ Bébé Diène daan na ko ilaha illallah war attention ah ah jege nañu nit Aliou Sané. mbër nga waaw laaj <laughs> da ngay laajte wala. waaw. <laughs> laajteel public bi. Ah. waaw. waaw lu waral sa teewaay. waaw gis nga rek bu nga seetaan si rek. namu lamb moo tax ma seetaan si quoi. aha waaw noo gis affaire bi. non neex na trop neex na trop joxe de. waaw waaw. da ngeen jëlal ma li yàgg man xoolal ma lamba jaa noonu ñuy dafa mel ni wànkee xoox na ndeysaan xoolal amateur li ñuy def waa Cees a ngi ndeysaan xoolal sala mel muy def a toj ci suuf day yàgg maar mbokki Leewtoo Thiès tey vingtième édition laa ilaha illa Allah xele ba la muy fecca day waar e sala jël nañu tànk bay fay jël na tànk bay fay jël na tànk ba ndax dina ci genn bi pa jam na njaabi golo e eh, bay fay gënaat na ca laa ilaha daw na gën taxawaat e eh, bay fay waay ah Boy Faye. waa bii est-ce que lii jaaxal na ma Boy Faye. waaw est-ce que dañuy bëree. dafa dañuy bëree. waaw génn nañ ci lële ñu ngi ci bëree. lala Boy général Malika. Boy Faye ak général Malika. Boy Faye su ma doon yow dootuma ko may tànk ndax wóorul. Ponguel xajul ci yel waa Boy Faye ak Malika temps bi dina jeex boo watuwul ndax seen combat dafay mel ni lu déggoowul mel Caaka eh. Faye arbitre atte na Général Malika Boy mi il trop confiant aujourd'hui Abou Nour Boy Faye dafa am confiance tey di maye tànk yi est-ce que loolu wóor na ah. waaw Boy Faye du du neex daan parce que boo xoolee ñaari yoon ci Malika mu ngi jàpp tànk waaye mënu koo daan combat bu métti la lay doon biram combat métti la. Abou Ndour nga ah Boy Faye jël na général Malika ndax loolu war na général bu may loolu Boy Faye ah lu xew ah général Malika am na ndam. Thiaka Faye Aboubacar Sarr Kédougou Thiaka moo woon ginnaaw Thiaka Faye moo woon ginnaaw Aboubacar eh Sarren bi Aboubacar Sarr ceinture rouge Thiaka Faye ceinture bleue catégorie 100 kilos kan moo ciy dem demi-finale kan moo ci dem demi final ci ñoom ñaar Caaka Faye moo fay des attention jël nañ Caaka Caaka bañ na Aboubacar Sarr Aboubacar Sarr ndeysaan Caaka Faye Aboubacar Sarr Caaka moo ngemboo ngembu ñuul li Aboubacar Sarr ngemboo ngembu lu bi diggante Kédougou ak Kaolack Kaolack moo nu ginnaaw Kédougou jàkkaarloog nun attention Caaka Faye na tànk ba eh Caaka eh, génn na ah mboot ma mboot ma arbitre tas na leen mboot ma jotul a àgg dañuy avertir caaka ndax da nga génn caaka Aboubacar Sarr dem na kondomba Moussa Faye war na kondomba ah Assane lu ni ah attention génn na ca Moussa Faye Thiès Assane Tine Matam Assane Tine Moussa ñaar ñi xamante lañu catégorie 66 kilos demi-finale la ah

Assane Tine moo nu woon ginnaaw Moussa Faye jàkkaarloog nun attention Assane jël na ko ndax la ñu bëgg a bëre ñoom ñaar ndax dina sotti attention Assane Moussa Faye moo nu woon ginnaaw Assane a jàkkaarloog ñun jàppante nañu jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu Moussa Faye xam nga tàmm na ko waaye Assane Tine eh Moussa ko mu bañ asan eh Assane ah ah dafa mel ni Moussa Faye daan na Assane Tine doomi Mbar waaye Moussa dafa mel ni da ko jaay xelu mag jàpp na ko takk na ko génn ñu ñëw ci biti arbitre sifflé na avertir nañ la ceinture bleu arbitre sifflé waat na Ousmane ak Ngor Niakh Ousmane ak Ngor Niakh jàppante nañu Ousmane ak Ngor Niakh jàppante demi-finale 76 kilos ñu war a tànn ci ñoom ñaar kan mooy dem Ngor Niang Dangan Ousmane Mangane eh, ay jàppante nañu Ousmane Mangane ak Ngor Niang ndeysaan ngay lu ah attention deuxième avertissement Ousmane moytul deuxième avertissement bi ganul ci liggéey bi ndeysaan eh mbayang lu ñaari xale yaa bëre Amadou Diop Alaj Serigne Fall professeur ñaari xale yaa ngi bëre Ousmane Mangane Ngor ña Ousmane looy def li attention boo xasee am ñaari avertissement temps bi bu jeexee day doy waar demee demi-finale 76 kilos attention dem na jàpp ko mu nga arsala sap da benn potoom bu jógaat jàppante nañ ci kaw Ousmane ak Ngor dafa bëgg a fayu waaye dër na xale bi dër ci dal ah ah seen bëre bi dafa mel ni ceinture ba wadd na waaye teewul identification bu mën na dem rouge ak bleu la samp na beti benn botu loxo ba jàppante waat nañu Ousmane Mangane ak Ngor Niang ey waay ey bayang lum waay aa ah, faxat na ko daan na ko laa ilaha illallah Ngor Niang attention ay ah, ah! ordinateur ordinateur jël na ko ordinateur jël na ko attention ordinateur attention ordinateur jël na ko ah Sadio Balde day reculer ordinateur ah jox nañu Sadio Balde avertissement Sadio Balde ordinateur arbitre sifflé na Sadio Balde ñu woon ndejoor ordinateur moo nekk suñu càmmoñ Sadio Balde ñoom ñaar dañoo nattante léegi cent kilos demi Balde ordinateur ordinateur Sadio Balde ndeysaan ah Sadio Baldé lu muy def nii da ko bëgg jox tànk ba ordinateur jàpp na tànk ba jël na tànk ba ñoo ngay warante ah Sadio wóolu na boppam ah Sadio wóolu na boppam ordinateur jël na tànk ba aj loxo ba suuf Sadio ngi taxaw dafa dër arbitre nee na leen bëri leen ah Sadio ki nga jox tànk ba xam nga ko Sadio Baldé doo foote du suba la ah Sadio Baldé Sadio Balde yaa ngay arrière boo génne am avertissement Modou Faye jël na tànk ba jël na tànk ba aj na ko ca kaw ordinateur ah Sadio Balde génn ñaari avertissement ordinateur ordinateur Sadio Balde ordinateur Sadio Balde mais mais ah ah attention def nañu nañu defaatoon ndax loolu wóor na Sadio Balde mayaat na ko tànk ba ah Sadio Balde génnaat na ordinateur dem na final ñetti avertissement dañ lay disqualifier bañ na xale ba la ilaha illallah ah ordinateur ndeysaan Maxa Diop mooy bëre beneen wàll ba moom ak Famara Sarr Maxa Diop Famara Sarr ah bot na ko war na ko lamba mu bañ Famara Sarr Maxa Diop ah arbitre nee na jeex na ma Maxa Diop Saint-Louis moo do bare Famara Sarr ndeysaan Tambacounda yéen a ko gisandoo xoolal ma yàgg maar xoolal presse bi xoolal ma presse bi ni ñu toogee <laughs> gars yi yaru jëlal ma suma frère yi xoolal ci doomu Bécaye Mbaye la kenn du ko présenté loolu jarut wax loolu rek wax bu yàqu la Sénégal mais xoolal nu ñu toogee yar beeg teggin bi abu nduura gi xoolal caméraman yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy reporter yi xoolal ci kaw nag ah mais presse bi xoolal xoolal jë xoolal Mali dañoo toog ci suuf ndeysaan presse baa ngi noonu ndeysaan yaa ci gis yaa ci gis mais yàgg maar ci kaw ci kaw mbokki Leewtoo boo xoolee ci kaw fees na ba ne dell laa ilaha illallah stade bi fees na del pourtant tey du final ndeysaan ndeysaan xoolal ma jëlal ma lii ah fees na bana del yàgg maar loo ci ti dégg Malick ak Saliou Ngom bu Louga général Malick ak général Malick ak Saliou Ngom général Malick a ñu woon ginnaaw Saliou Ngom a jàkkaarloog ñun Louga la waare ca beneen combat ba ñu ngay waajal Abdoulaye Wilane Ndoye di Libidor bu grand mbooloo wala ba rek Aboubacar Sarr bu Kédougou eh général Malika attention Saliou Ngom laal na bopp ba général Malika Saliou Ngom général Malika Saliou Ngom ah attention Saliou Malika war na ko war na ko ndomba ca bopp ba daw na diggante ndax dina ko ca bàyyi ah. war na ko ndamba xale bi dem na final Aboubacar Sarr ak Abdoulaye Wilane Ndoye deuxième demi-finale deuxième demi-finale Abdoulaye Wilane Ndoye Aboubacar Sarr ndeysaan attention Libidor lu ñuul Aboubacar Sarr moo gën a njool moo ngembo ngembo Lagos li feete ñu càmmoñ ndeysaan ah, na lu xew Abdoulaye Wilane Ndoye di libidor bu Grand Yoff moog Aboubacar Sarr Aboubacar Sarr moon woon ginnaaw Aboubacar Sarr moon woon ginnaaw libidor Aboubacar attention Aboubacar Sarr dem na jëli libidor libidor capté ko libidor roof ko loxol gauche bi tegante nañuy bopp bàyyante waat nañu ñu ngi lewto ñu ngi lewto arbitre atte na leen avertir nañu Libidor benn avertir Aboubacar benn dañ leen ne bëri ñoo ngay bëri attention Aboubacar Sarr jël na tànku Libidor daw ak moom Libidor résisté Libidor a ngi tey ci benn loxo bi ah, a ngi koy sotti mu bañ ñu ngi doxe wet nu ngi bëre ay jàppante bi tar na ah tibb na suuf sa raso ko Libidor dem na song mais xale bi dafa mel ni dafa naqaree song njool la waaye dafa wàcc Libidor a ah, arbi atte na leen yéen a ko xoolal ma yàgg xoolal presse bi xoolal ma presse bi ni ñu toogee <laughs> gars yi yaru jëlal jëlal ma suma frère yi xoolal kii doomu Bécaye Mbaye la kenn du ko présenté loolu jarut wax loolu rek wax bu yàqu la Sénégal mais xoolal nu ñu toogee yar beeg teggit bi abu nduura xoolal caméraman yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy reporters yi xoolal ci kaw nag ah mais presse bi xoolal xoolal je xoolal Mali dañoo toog ci suuf ndeysaan presse baa ngi noonu ndeysaan yaa ci gis yaa ci gis mais yàgg maar ci kaw ci kaw mbokki Leewtoo boo xoolee ci kaw fees na ba ne dell laa ilaha stade bi fees na del pourtant tey du final ndeysaan ndeysaan xoolal ma jëlal ma lii ah fees na daal bana del yàgg maar loo ci mën ti dégg Libidor Aboubacar Sarr Aboubacar songo nanu songo na Aboubacar Sarr dem na jëli ko mu ngi koy bëgg a jël Libidor bañ na da ko joxoon wet bi ah mu ngi koy puus mu ngi koy puus ah Libidor remplacé na ko waaw waaw ah ñaari avertissement songoon nañu Aboubacar Sarr Libidor Aboubacar Sarr Ababacar Sarr mbokk yi Leewtoo professeur El Hadj Serigne Gningue jàppante nañu Amadou Diop Gongu Ndiane Pay Dior Samel gay jàppante nañu mbayang lu may woy eh ni Ababacar la ilaha illallah yàgg maar yaa ci caméra bi waaye xale yi yàgg nañ ci bëre jël amagul waaye avertissement yi man nañoo génne verdict Birame dafa mel ne combat yi ci ëpp par avertissement la ko la ko la ko euh, mbër di gagné. dañoo nandante seen biir dañoo comprendre. waaw dëggantaan dañ lay dañ lay buux ci nga pour nga am avertissement. ah ooy oh, Libidor bul génnaat ah. Libidor nax na ko ba génne ko. stratégie la yàgg ñaar ñaar. juumul su ma juumul euh, kële Libitor combat bi mujj ci Adrien par avertissement la ko gagné. xam nga dañuy yeew. waaw finalam bu mujj Adrien par par avertissement la ko ne nii ku ci am ñetteelu avertissement yooyu am défaite te ñu demi final loolu du neex. laa ilaaha illallaah ñu ngay bëre ñu ngay bëre jàppante nañ ci kaw jàppante nañ ñu ngi nattante doole yàgg nañ ci bëre bi ñu ngi lewatoo waat ay xanaa ah jàpp na tànk li bi door li na ko lu ñu nar ku ci jëkk a génn gi boo wattuwul da ngay ñàkk moytoo ci am ñu ngi bëre ndeysaan déggal li fogole la ñaari xale yi boo wattuwul arbitre koy lijjante xoolal dem leen seeti seeni entraîneur yi déggal mbayang lum na yayma yuɓanam ha peeta o yatama firkel e borom lul sese ndeysan ehe mbokki Leewtoo ndeysan bom xaada lanke mbisel libidor crochet na loxo ba bare ci kaw ay e, waay ku dof dof la ba am lii de avertissement foo jëm ndeysaan fàttale na ma mayende ngom Clémence al na nam ñaan na kama lambosto ndeysaan al demba ñi leen Moussa Ndofène bom xaada lanke mbisel Max Mbargane ñu ngi borom Top FM yàgg maar xale yaa ngi bëre attention Abdoulaye Wilane Ndool dem na jëli ko Babacar biram Libidor expérience lay bëree parce que jàpp naa ni instant bu arbitre bi tranché mooy jël par avertissement victoire bi xam nga lamb def loolu tolluwaayu lamb la yàgg maar xoolal mu ngi gis nga nu mu diibee bu ñu jegee koy pousse mu génn wala mu remplacer ko yàgg maar dafa yàgg ci làmb suma ma juumul par expérience ni muy bëree sànq ba tey day jox waa ji wet waa ji ñëw mu waraan ko kanam pour ñu jàppante continuer ci jàppante bi eh yàgg maar sama cameraman bu baax boobu wangu ñaan nuyu nañ la libidoor arbitre sifflé na ah benn avertissement Libidor gagné na dem nga final waaw sant yàlla rek sant yàlla ak Libidor ragaluma loolu xam na ma Libidor xam na ma mais loolu doon wax ak Boy Faye Boy Faye mbër la ñun mbër lañ na gëm yàlla chaque jour ñu ngi ci tournoi di compétir mais damaa xam ne li muy liggéey moom liggéeyu ko li may daj daju waaw Malika dañ maa yónni yàqamti ma waaw Fatick yónni ma yàqamti ma taxawaalu waru ma. sa waay sàng ba tey mi ngi lay tëkku. c'est que. c'est que man maa mujjee ñëw ci simple bi mais kafu ma ci réew ma ci maa ci mujjee ñëw maa a nekk xale mais kafu ma ci réew ma ci barke Serigne Bamba. waaw noonu la demee lamb la ñu ne xale lañ dañuy liggéey chaque jour matin soir. non femme non film y' a pas de maladie y' a pas de maladie barke Serigne Touba. xale bi waxati na. war loolu. Ah. wala li mu door barke borom daar bu ñu ko keppee dañ koy defal bagage. waaye ñun dañoo liggéey ay xale yu ndaw lañ. barke Seydouna Mouhamed. kii daa nekk xale nekk Malick samay morom a ngi nii ñii laa barke Serigne Bamba. maa ngi maa ngi fay bu baax a baax. waaw mais dem nga final. waaw sant yàlla bu baax rek. mënu ma waaw sant yàlla mënu ma gaay fi ne yàlla moom may rek ma dem final drapeau Sélé la nag ñetti année yëpp maay fil de cent bi Kolda Fatick Mbour kon kon bii nii dama teg sama bakkan incha allahu rabi pour bi non amul ni ko ma mënti daan te incha allah bi di xam final bi dina wuute. mais bi doon yan a dem moo organisé boo dem final. nga dem final encore lan comme ñëpp. parce que bëri lu ci def rek moytoo nañ ko ñu ngi liggéey ni mu waree def nañ la groupement ni mu waree waa Kees taxawoon taxawoon nañu ni mu waree aussi tamit xam nga sama grand yi nii waa Zoual jàpp na ci euh, Arona Dieng mi ah jàpp na ci bu baax te incha allah ndam day des fii da leen di fete ñaaw parce que ni affaire affaire de raison de Kees la fete fete fete bu baax laa koy def mu may tëgu wante yàlla baax na yàlla ma yàlla dooleel incha allah xamante ne bu baax li ma ci jaaxal du bi léegi gis nga mu demee. waaw xam nga ñun dañoo xamante kii euh, bëri na ñaar yoon quoi lamb yi ñun ñëpp mu xamante moo tax mu demee noonu quoi 11 heures rek seer ak normal rek ba dem final loolu si nekk. Maysa Ndiaye. waaw ah, Maysa Ndiaye amuñu fayam na tey du reer. waaw amuñu amuñu fayam non du tiit ndax parce boo xoolee waa kees mérité nañ am nañ 3 final individuel mm. ak final kon mérité nañ lii drapeau bi quoi te incha allah dina incha allah dañ ko jël. waaw mais moom dafa am booy parce que bëggul jàll jàkkaarloo yow dafa tiit fu mu ne. waaw non problème loolu dara. incha allah non non benn problème loolu dara affaire bi suba ma woon boole suba ñu taxali ko incha allah ku xam ku man quoi. Abdoulaye Andoy waaw kii mooy. Libidor bu Grand Yoff mbooloo. na ko. waaw yàgg ko def. yàgg maar ne ko bandum. fier d'être Thiessois. purement de Ngoundiane li bi door a ngi mbokki Leewtoo lañ koy tëjee ba subak jàmm final Thiès Dakar